7TV télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale mbégte lay doon ak bànneex comme ni ñu koy defee tous les mardis à partir de 14h30 seen émission bi di xew-xew nga xam ne lépp loo xam ne xew na ci réew mi dañ leen koy indil bi ngeen ñu gisee fii ñu taxaw nag ñu ngi fii ci presse tëngéej bi nga xamante ni fi nekk diggante Jacques mbaaw ak tëngéej ñu wax koy ko wax ci presse gis ngeen xew-xew bi fi am ba nga xamante ne lu mat juróomi nit ñàkk ci seen bakken gannaaw bâtiment bi nga xamante ne xale dañ ci nekkoon di liggéey yàlla def nag mu màbb daanu seen kaw juróom nit ñàkk si bakken si saase juróom benn nit ñoo si mujj mucc ndax neñ fukki bakken ak benn ñoo fi nekkoon di liggéey mu nekk xew-xew bu metti lool lool lool gis ngeen ko nii Pape gis nga image yi mu nekk lu doy waa lool xam ngeen ne bâtiment yi ku mu dal si kawam nga surux si biir yaakaar naa day doon loo xamante ne lu métti lool lool lool waaye fi nga xamante ne fi lañ nekk muy si presse gannaaw bu ñu fa jógee dañu fa dem fële nga xam ne mooy Zac Mbao cité bi nga xamante ne ATE la ñu dem xool ji kër gi nga xamante ne am na ku fa mucc waaye am nañu ku fa ñàkk seen bakkan muy ko ñoom Ousmane ak Doudou ñu daal di ànd pap bu ko defee dem fële nga xamante ne mooy Zac Mbao xool ji ki nga xamante ne rescapé la fa ñu waxtaan ak moom nan la dundee xew-xew bi dund nan waaye jaalaale ki nga xamante ne moom moo ñàkk doomam sëñ bi na nga def. maa ngi fi. Euh, dañu ñëwoon tey fii nga xamante ne fii la xew-xew bi amee muy seen kër fii euh, yow nan nga tudd. man Boubacar Boubacar Ñokke. d'accord lan nga si ki nga xamante ne moo ñàkk bakkanam muy dugg. waaw kooku ñoo bokk baay ñoo bokk baay Ousmane ñoo bokk baay Abdou Ñokke ñoo bokk baay. d'accord noo yëgee xew-xew bi dal seen kaw. man de boobu dama wàcc liggéey sangu dem bay jàpp si lañ ma oo téléphone ñëw wax ma ko mu doon mu doon affaire boo xam ne affaire bu ma métti bu ma def soog. mu doon loo xam te xaw ma na laa koy xaw ma fa koy wax noonu laa jàppee xaw ma sax ñu ma julli si boobu dama ñëw julli ootee ñu ne ma effectivement looloo am ñu ma ma ne waa man xanaa daa feebar ñu ma noonu feebaru ma ne ko lan moo xew ñu ma bâtiment bi gars yi doon wax depuis midi xaw ma ba di heures bi daanu Rufisque la moom si la bokk man a noonu loolu mënul nekk ma a loolu mu ne ñu ne ma si effectivement si la bokk mais ñoom ñaar ñëpp la woon moom Abdou Ñokke ak Ousmane Ñokke mais Ousmane yàllaa ko dimbali bâtiment bu muy daanu moom dafa jegoon porte bi gis nga dafa jegoon porte bi moom bu muy def benn kii moom si la daw génn gaaw léegi duudu xam na Abdou ñokk moom woon si biir bi moom bu muy daw bay kii fekk dal bi yegg si na mu doon laamte li stress. Abdou moom mooy duudu. waaw waaw moom mooy duudu waaw. waaw benn tur bi la waaw. d'accord mu nekk lu métti loolu. mu doon lu métti lu métti di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un voilà mbokki téléspectateurs yi gannaaw ba ñu jógee fële jëye ji am si Cyprès ñu ngi fii nag si kër gi nga xamante koñ bi nga xam ne mooy Zac Mbao quartier ED fi nga xamante ne fi la ñaari xale yi nga xamante ne euh, kenn ki dafa ñàkk bakkanam muy duudu âgé de 18 ans ak keneen nga xamante ne moom yàlla def na ne mu mucc mooy Ousmane muy mag ji fii nga xamante ne fi lañu dëkk ñëw nañu nag si dëj bi fas yéene ànd ak ñoom massawu leen gannaaw bi xew-xew bi dalee seen kaw bi yaay ba ñu ngi lay la gërëm ma leen sant man dafa ma jaaxal dafa ma bett ma nekk ni moom soxna si bàyyi duma la nëbbatu affaire bi dafa ma jaaxal doom bi du du ñokke du man yaayam man tantam la par maa ko yar maa ko yar seen papa ba mu génne aduna yaayam ñibbi dëkk Casamance yaayam ba mu ñibbi ma ma def at ma ñëw jël ko doomu góor la ma ne ma yóbbu ko ma dem jàngal ko liggéey Casamance bu ko yóbbee fekkee duudu mi jàng mi jàng école bu mu demee foofu mu continué jàng école am mi jàng école ba ba mu màgg tuuti at bu ne day ñëw vacances lu lu mu liggéey tuuti ak lu ma liggéey tuuti ak magam lu ñu liggéey yëpp ñu boole ko ñu def ñu jëndal ko fourniture ñu jëndal ko yére mu ñibbi ba biir ren bi bii ren bi itam bu mu ñëwee woo ma ma ne sama yaay maa ngi ñëw ma ne problème amul fu nga jógee sa la fu ngay ñëw sa kër la problème amul mu ñëw ñu nekk jàmm asalaam ba barki démb si suba si ma man may root ma ko duudu ñokkee Ousmane jóg leen ngeen sangu du da ngay xëy mu ne waaw sama yaay dañuy xëy ma ne waaw jóg leen ngeen sangu ñu jox ñu sanku ba set ma ma ne balaa ngeen dem bay sanku ngeen julli ngeen xaar leen ma tànkal ceeb bi ngeen lekka ma ne waaw ma tànkal leen ceeb bi ñu lekk ba pare yëkkati 1000 francs ma ne duudu yàq sa mag bi ngeen bokkoo xam naa liggéey ouvrière dafa métti journaliste yi liggéey bu ne ñu leen jox waaye ba nga liggéey tuuti mën ngaa jënd ndekki nga mane sama doom bi lii la ñuy mujjee yoo bu ma xamoon bu ma xamoon du mën a nekk ay bu ma xamoon eh si mu nekk lu metti lool nekk sa doomu borom kër gannaaw bi nga ko yaree mu miin la nga xam ne yow la xam ba wala tax bu école tëjee day jóge Casamance ñëw fii si yow ndax yar bu rafet boo ko yar euh, boo ñu doon wax sa diggante ak Duudu. diggante mën naa ko Duudu gannaaw bëgg rek dafa ma bëgg Duudu yàlla xam na ne lu man maa yaayam bàyyi lu ma bëggee est-ce que ëpp loolu na ma bëggee yaayam ak nu ma miinee si lal bii laa lay yar. bu nga gisee ma naax si jaboot yi da nga yaakaar kii yëpp sama jaboot la fekkee jabooti sama wu jeey la kii aw nii moom mooy aaw bi man ñaareel laa yaay dudu mooy ñetteel bay mosuñu ñiiroo ŋaayoo ñu ne bu ñu tasee nekk bi dañuy def ndey ak baay ñoo bokk ndey ak baay bokkoo jëkkër bokkoo arsike la yàlla xam naa de ñu ne ko amuñu affaire wujj moo tax doom fu ñu dem rek danga nga yaakaar kii mooy yaay kii ñun suñu doom yi gannaaw bu lañuy ñuy waxee diw moo jur ki diw moo jur ki yàlla xam na loolu. mais yow nan nga yëgee lii dal ci sa kaw nan nga ko yéegee ak kan moo la ko wax. ku ma dal sama kaw ñun yàlla xam na ne keroog sama doom yi bu ñuy def sokk fekkee côté Cyprès daa nag foofu laa nekk liggéey man ma xëy fekkee sama doom yi dañuy feebar rakkam yi. ma yàkkee sama xaalis ma jox ko sama sama jànq bi mooy mari ñokke man ma doomi opitaan man ma dem sama liggéey mari yekkati doomi yóbbu leen opitaan bi ñu ko yóbbee man ma yegg si fu ma liggéey ñu woowaat ma mu ne mari mu woo ma mu ne sama yaay fu ma nekk nii de ku ndaw ki dañu koy sampal butel dañu koy jël deret ku mag ki moom ordonnance rek la ñu ko bindal bu nga mënoon nga ma xaalis bi ah fu ma nekk ne dama génn dama dem liggéey ma ne ah defal ngir yàlla rek ngay delloo kër ga ma ne waa léegi laa ñëw ma fekk sama doom yi moom kese moo nekk ak doomam yi ma yëkkati xaalis bi jox ko ma ne waa dama la awaay sa rakk bi xaalis bi man ma tey doom bi bu mu demee awaay xaalis bi bu mu ñëwee man ma jëlaat sama sa daal la ma solaat dama daal la ma delloo fa may liggéey jaka dekete yoo man may delloo sama doom yi si sokk bi dama doom yi ñu ngi si sokk bi ma ne kaw ma dara ma dem ba ñu footu footu footu mooy sama yaram nu ma tàmmee sawar si liggéey bi yaram bi sawartul noonu yaram bi sawartul noonu ba ñu li ba ñu ma footu ba pare ñu wàcca sama rakk bi seli kamara mu lal paska bi mu ne xami kamara xaaral ma dem jël lal ka kii bi yére yi pour ñu commencé ba mu ñëw mu fekk ma ma tëdd mu ne ami lan la ma ne dara am na fu ma nekk ni xaw ma lan la bay sama yaram bi dafa bàyyeeku mu ne waa joxale ñu ñu liggéey kaaw nag ñu ñibbi moo gën ma ne waaw noonu la noonu laa jox ma jël sama liggéey bi ma paase paase naa ba pare jànga fu may liggéey mu génn mu ñëw mu ne taa ami yow dégg ngeen lu xew ma ne lan moo xew mu ne ñun suñu côté bi fii dafa e am étage lu daanu ma ne étage daanu mu ne waaw man kanaa nit ñi dañuy nekkoon foofu mu ne waaw nit ñi dañuy nekkoon foofu man ah doy na waar de borom kër yi bu ñu gisee seen kër yi dafa commencé yëngu kay lu ñuy dugal foofu locataire baaxul moom ma dem ma continuer sama passé ma continuer ba ma pare bu may ñëw. fekke man sama portabal bi si kii laa ko bàyyi bay bàyyi naa ko xale yi ñu yóbbu ko hôpital pour kii maga rakkam bu soxalee dara mu woo ko moo nekk kër man dem naa liggéey bàyyi naa fi sama portable ñekk nekkite woo man maa ngi liggéey sama doom yi ñu si sokk ami ala yàlla baax man bu ma demee bu ñuy ñëw may paree passé ñuy ñëw sama set bi mi tëdd Kéba Camara woo maamam woo maamam maamam ku jigéen ki sama rakk bi mu ne maamoo sali Salma dama ne naa mu ne fu ngeen nekka ni Salma dama ne ah ñun ñu ngi ñëw de ñu ngi ñëbbisi mu ne gaaw leen yow rek la ñu xaar sali mu ne waa lan la sali ba mu waxee lan la rek mu ne déedéet ñëw le rek man fekk sama sama tànk bi yëpp day na mënatuma dem ma toog man sali lan la lu xew sali mu ne keebaa lan moo xew kër ga mu ne dara lan moo xew sama kër mu ne dara koo ma coupé man fa ma toog fekke maa ngi ma maa ngi kii lokk ma toog may sali kamara doomam binta kamara Binta woowaat yaayam mu ne yaay fu ngeen nekk ni Salmatu nee na ñu ngi ñëw de mu ne barab ne mun na ma leen nëbbata bâtiment bii daanu Cyprès Ousmane ak Louga ñoo nekk foofu. laa xaaj Allah Muhammad Rasulullah la Sali daw si Sali muy dem man heure boobu bu fekkee mënatuma dem para para fekkee dañuy yor bagage. mënatuma dem ba ma ñëw ma ñëw ñu ñëw ndànk-ndànk sali ñaw ñu tase suñu set bi Kéba Kéba Kéba ñëw jàpp ma loko mi mi jël bagages yi indi ma sama yaay eh, maam ma ne na ma ne maam ma ne na ma ne defal ndànk rek defal ndànk Ousmane de génn na yóbbu nañu ko Isum Barkaan léegi duudu moo des man loolu laa teg fi bagages yi may daw. may daw ma yegg si foofu dëkk dëkk te oh, sama doom yegg génn nañu ko bari bay des na ke dey na man lan laa koy wakkee yaayam fu ma koy wakkee yaayal loolu moo ma jaakal soxna si ku la bàyyi doomam muy ñëw si yow kollere eh, ami ami la fan la koy wakkee fan laa koy wakkee mi sor boobu moo ma jàpp mi sor boobu moo ma moo lor sama yaram loolu sama yaram. nu yëgee xew-xew bi dal seen ah bi xew-xew bi di am de man rek maa newoon ci kër gi ma nekk sama ñaari doom ki ma boot ni ah magam tuuti sama rakk bu nekk wakaam bu ñu naan papis mu ma téléphone ma wuyu ko mu ne ma mami ça ko ça va ne ma foone ma ne ko maa kër ga mu ne ma amul góor bu na sewet ma ne ko noonu fi ma nekk ni amul benn góor bu fi ne man rek maa fi nekk ak sama ñaari doom yi mu ne ma voilà dañu ma ne Ousmane ak Doudou chantier bu ñu liggéeyee si bâtiment bi moo daanu seen kaw mais Ousmane il s'est sauvé mais duudu mu ngi resté si biir batiment bi ma ne ko ma ne ko kan moo la ko wax mu ne ma grand bii ma woo moo ma jo moo ma woo nii wax ma ko mën nga jox ma numéro am ba may jox numéro mu juum bindal ma 77 209 95 95 ma woo grand bi grand boobu ne ma déedéet ma suma oote di wax ay waxu batiment ban batiment ma woowaat sama rakk bi ne ko da nga juum grand yow est-ce que am nga information yu normal parce que numéro bii nga ma jox ñoom nee nañ ma kii liiwul la moom nee na wootewul mu ne ah ma ne ko waaw mu ne ma mami mu woowaat ma ne ma man maa juum au lieu de 77 c'est 78 léegi nag bi ma woowee si 60 bi ma ko woowee 78 bi ma daal di jot grand bi mu ne ma c'est mag bi sauvé nañ ko mu ngi ëffale Youssou Mbargaan mais rakka ji mu ngi ne ci bâtiment bi te sapeur ngi ciy def ay jéego instant boobu laa mepp sama doom comme te xale yi dañoo demoon alxuraan ma bu ñu ñëwee togguma woon te ay xale lañ ma mepp sama doom dem. xool leen ma taxaw fa lu yàgg sapeur nee ma ñoom ñaar ñëpp génn nañ mooy sapeur ak femme yi nekk foofu nee ma ñoom ñaar ñëpp génn nañ ku mag ki benn femme bu xees sax moo ma doon expliqué ne ma ku mag ki euh, moom mu ngi yuusu mbargaan mox ku ndaw ki te amuñu benn gaañu ay blessure rek lañ am mais kenn àdduna kenn doful ndax ku ne xam nga wax bu tegu ah bu teguwul moom dama comme dama téye samay doom te naaj bi dafa tàng ma oññeekuwaat ma toggal xale yi lu ñu lekk bu xale yi lekkee ba pare ma ne leen dellu leen alxuraan ba ngeen gont bi xale yi ma tëjaat bunt bi ma yegg jiwaat ma nekk si presse nekk si presse nekk si presse ba yenn koor yi ni ñu génnee ñu ne ma yow soxna si wax nañ la sa rakk yi génn nañ dem nañ ñu ngi yuusu mbargaan man ne leen li ma yëg sama yaram man xam naa ko xam naa ne Ousmane mu Youssou Mbargane ndax loolu leer na ma ne ñëpp ak ma naa mu Youssou Mbargane mais duudu moo ma desee wóor mais ndeke koor boobu ñuy teg ci ambulance bi ndeke la si laa ñibbise fii comme yëg naa dese bi si laa ñibbise ñoom ñu yëgaguñu koon dama xam sama yaay ma def comme si de rien n'était sama rakk Mariama ñëw ak xale jóge hôpital léegi nag bu mu ma ne ko wol ma papis mu ne ma lan moo xew ma ne ko woor ma papis mu woor ma ma ne ko papis yow yaa ngi fan mu ne ma maa ngi fii Sipres si chantier ñoom Ousmane ma ne ko Ousmane nee nañ mu ngi hôpital mu ne ah ma ne ko duudu mu ne ma loolu moo ma dese leer maa ngi nii si fii nii te fii dafa bëri nit instant yi nag maa ngi nii di laajte kii yi sapeur yi mais waxuñu ma dara. si la Mariama après ma ne mari wool ma borom numéro ba le borom 78 bi mu woo ma woo ko 78 bi moom il m'a confirmé que ni Ousmane sauvé wu na mais Doudou dafa décédé sama rakk bii Mariama si la yuuxu ne ñëpp sëf Doudou après mu xëppoo sol yére daw fekk ji leen si presse man ma jéem a arrangé xale yi ndax essay ñoom ñëpp perturbé wu nañ ma jéem leen dalal wala leen c'est fausse alerte ma bàyyi leen fii ma meebaat samay doom ñu ànd dem ba ñu demee ma fekk sama yaay daanu na nekk si biir kër gi jege batiment bii daanu ma ñëw fekk ka fa ñu ne ñu duudoo ngi hôpital ma ne ko duudoo ngi hôpital mu daal di jóg ñu dem mais ñun xam xam naa ne boobu duudu sedd na ba ñu ñëwee ñoom nag ñoomu njëkk egsi si kër gi ma gis leen ñuy yuuxu mu doon affaire bu metti du question tey li ñu yàlla teg moo ñu metti suñu borom soxlaa keneen ko soxla da ñàkk mais tey duudu dafa nekkoon unique si yaayam parce que yaayam ñaari jigéen la am benn góor yaayam feebar ame ay bët bët yi da koy daanal te bu ko daanalee du gis tey duudu daan liggéey ñu boole lu ñu am àll fi duudu nekk sama yaay moo yor duudu yor yaayam mu metti loolu te papa duudu mu doon xale bu ñu bëgg xale bu ñu takk te waxtam seen ay doom bàyyi lañ ma bëgguma wax bëgguma jooy ndax dama waat ne duma ma jooy parce que moo sama danga naan duma ne yaay ak doom mais danga naan sët ak maamam mu bëgg ko loolu mu yar ko loolu vacances day yàkkamte école tëj pour mu ñëw tey bu ñu boolee tiis mooy lan lan la ñuy wax yaayam lan la ndaxte yaayam tey nit ku la wóolu mu yëkki bakken teg sa ñu ne dee te waaye mu yëkki beneen bakken ndax magam bi ñu naan sira bu ko ndeex bàyyi kii moo yar mu ngi fii kii moo ko yar tey ku yëkki ñaari bakken bàyyi lax ñoom kooku bëgg na la tey lépp lu ñuy ñaan rek mooy ku ñuy dimbali ku ñuy dimbali si lan situation yaayam te vu nga ñu fi ñu fekk fii xam nga ne ñu ngi si situation ndax tey ku daan yor doom moom ak ah, yore yaay bu amee bët du gis léeg-léeg bu ko bët yi daanelee façon bu ne lañuy def lépp lu ñu am dañ koy dajale ah, envoyé mu dem pour yaayam fajo loolu gënoon yokku tax mu boole jàngam bu écotigee mu gën a daw ñëw mën a jàppale waalo yaayam tey kay lépp lu ñuy ñaan rek mooy ndimbal atam ah, ko ba dimbali sama yaay ji am na tension bi 24 heures la koy daaneel ah nu muy def ba muur loolu yi loolu laa gën a bëgg aussi voilà dégg ngeen ko noonu ki nga xamante ne mooy sëram tamit li mu expliqué Ousmane yéen bokk ndey ak baay. ñoo bokk ndey ak baay sama rakk la. moo tax nga ne ñëpp sëf sëf duuru parce que doon Ousmane sax peut lay gën a oyof si yéen. voilà si lu ñu yaakaaroon. Mhm. parce que tey sa doom baay ndénkaan dafa foor te ki la dénk moo la bëgg. te def ñoo bëgg te yemalew ñu ko dara tey bañ ko woowee téléphone xam nga lu mu wax nee leen seen yaay mu muñ. yàlla mooy tege yàllaa ñu ko joxoon jëlaat na ko tey sax dama naan amaane ni moom moo ñu gën a dëgër loolu laay waaye dama gën a dëj bi jooy yëpp du tey jooy après la ñun jooye guñu yooyu après la la duudu moom moo neex a yor duudu moo am yar kooku moo am respect cëral ñëpp te fu mu nekk doo ñëpp di nga reetaan bu doon da nga feebar di nga bu doon da nga am ay problème di nga ko fàtte ndax xale la boo xam ne dafa ambitieux bari woon lu mu bëgg chaque jour mu ngi wax lii laa bëgg defal sama yaay lii laa bëgg yóbbu surtout kii mu naan bee bi bul ñëwee su ma la ko joxee rek jaru ngay xaar avion dama dama la naan piw nga yegg fi nga jëm loolu yëpp dafa neexoon bu tegal ko ay soñam ñaar ñuy fecc di parce que tey loolu noonu yëpp bu ko xalaatee c'est normal mu mel ni mu mel nii c'est normal aussi franchement maa ngi ñaan dimbal si sama yaay di ñaan dimbal aussi si yaay duudu sama tante ndax wérul moom it wér bi matul dëkk ne yàlla ñun sama papa ba mu gaañoo ba tey ñoom ñoo ñu yor ñuy tëbax dal tëbax dal ba tey gii nii dëkk ne yàlla voilà euh, Pape dégg nga ko noonu mu nekk loo xam ne lu émouvant la ni yaay ji waxee ak mag ji tamit ni mu waxee ñu daal di continuer suñu émission xew-xew si biir kër gi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen doom muy dudd ab ñu ngi toog ak euh, maire bi nga xam ne mooy awo si kër gi yaay booy ñu ngi lay nuyu di la masaw li ñu bokk maa ngi leen nuyu maa ngi leen maa ngi leen gërëm xale bi lu mu demee loolu naqari bi sunu doom ma gaañ ñetti jabar la man may aawa bi ñaareel bi ñetteel bi depuis booba jabar yëpp tasaaru man maa ngi wakaam yi ñu ngi fi léegi xale bi mu ngi ci yaayam moom la yàlla loog la yàlla am su góor ah, kii mooy magam day jàng école at bi nag école bu tijjee day ñëw vacances fii diggante tàntam ak man ah, bu ñëwee fii ay ay ñaari semaine la ñetti semaine mu dem ba wakaam fekk ma foofu encore nako ko waaye fanaan ko mu delluwaat ah léegi bi ma ñëwee moom mu noppalee ko tuuti nee na léegi maa ngi dellu ci ngéej ndam am lu ma fortaatu balaa école ba ubbi pour am lu may dolli ci kaye yi am lu ma dolli sama na ah maanaam ko waaw li nga wax dëgg la ba tey yàlla ak tey yàlla ak yow parce nga wax nga du tayal yaa lu bon. sàcc wala jël lu baaxul wala dafa yàlla bugg ko waaye da ngay daan sa doole yóbbu baax na yaa nga liggéey li nga am ba école bu ubbee ñun sa tante yi ak sa mag yi ñu dolli la encore def la sa yoon bu mu baax nga delluwaat ah barki démb man maa ngi wakaam maa ngi jaay ay musuwaar maa ngi xam nga borom njaba mënu toog di sam papa gaañu 2005 boobaa njaba bi tasaar na wallaahi léegi maa ngi jaay ma déggee bés boobu comme yàlla dafa ko yëg sax bés ba sama yaram dafa ko yëg sama musuwaay ma jëndoon yàlla xam jaay ma ci dara bés boobu mënu ma sax jóg sama yaram yëpp taay yëpp ba taayal gars yi daw dem nga jaay man ah day ma xam sa yaram lan la day raaj moom loolu ma comme fànn yi ma meloon sama lu xew ma nekk ci nag ci ba ngoon boori 6 heures wala 7 heures sama doom ku mag ki woo ma bu baax naan yaay fa nga nag maa ngi fi diggante Yoof man ko lan la nee na waa après nga bañ yàgg nga ñëw man nga lu xew Boubacar nee na dara nga ñëw rek man nga Bouba waxal lu xew borom njaboot la dégg nga doomu sama wujj bi mi ngi si man may kii yaayam mi ngi si man ak yéen ngi fi tata ñëpp liggéey waxal lu xew ma xëy dama xëy kër ga dara alhamdulilah yëpp xëy ngeen bay ma fa dara ma ñow leen nga gaaw la gaaw gaaw lan la ma dara ñëwal rek. dafa boobaa sax yàlla xamul ko foofu mujj tas moom mënutuma sax jóg dafa ma toog ma toogaat. sama yaram bi mi ngi lox lox lox gaañu laal la man ah ma xaw ma lu xew sama waa sama kër sama xale mi ngi may woo gaañu nga ñëw ñu xaar waxuma dara lu xew ah loolu ma jëjal ma jëli timis rek ma jël oto fekk maa ngi am deux minutes la yàlla xamal sama loxo yàlla ak tiitaay bi ak yëpp xamatuma xaalis fan la wadd fan xamatuma ma oto ma wàcce ngor jot encore ngor jot oto encore wàccaat wakaam ma dox maa ngi waaxu waaxu waaxu waaxu ba mu ñëw fekk yeneen suñu dëkkoon dañu toog si néeg bi mu nuyu mu gis tubaab mi ngi toog mu nuyu mu dem sotteeku ndox jàppal ma bëgg julli sama caabi mu di jooy Basiru man ko Basiru lan la ñu dara man ko lan la da ngay fen fi ngay julli nga jooy Basiru lu xew la wax ma lan la ma dara mu duggaat toog maa ngi lox néeg bi man ngeen wax la ma lu xew yàggul encore suñu beneen dikkande pël Fuuta ñëwaat encore mu may nuyu man nga wax lan la nee nga nga jàpp tudd jàpp yàlla du dara sa doom duudu dafa génn àdduna man ku nga ñi laan ñen dafa génn àdduna yàlla xam fu ma taxawal dama pét ma ma daanu man nga duudu nee na duudu man mënu nekk nee na duudu nee na da liggéey bat ma daanu nekk seen kaw kenn ki rëcc na da si ki ma ne ko ah nee man ga yooyu ñu ñu waxati lu nu def man yu ñu defati man que njaboot dafa tasaaru xale bi at ba nag day ñëw daana doole lu mu am yóbbu yaayam yaayam wérul comme doom su mujj na ma wax yaayam wérul bëti du gis bu baax ah yaakaar yàlla ak doom bi lu mu fàttaatu ak doomam bi lu muy liggéey du ko yendi lii na dafa nu yàlla neexul ba neexul nunu dunu metti loolu natt di daa def yàlla yàlla kenn mënu xëccaa ko moom yàlla kenn du xëccaa ko moom depuis mercredi ba léegi ñu ngi fi fi mercredi ah, koor bi génnagul na ko dara léegi ñu ngi jaaxal yàlla jaaxal kii dégg mu ngi tulo xam ah añu ko dara bañu ko dara sa tàntam dara moo ko gën sax ak doomam yi yàlla xam na ko Pape mu ngi noonu mu nekk lu metti lool moom mooy aawo si kër gi ñu ngi toog nag ak keneen koo xamante ne nii moom itam euh, ñu ngi ko fekk si kër gi yaay ñu ngi lay naa leen bu baax. Euh, ñu ngi lay masawu. yéen nga xam ne ngeen ñëw fii affaire kii bi nuyu naa leen bu baax ñëpp ay mbokk lañu. koo gis fii mu toog ñëpp mbokk lañu ndax mbokk moo sonal ndax xale bi ñun ñëpp xam nañ ko te ñoom ñetti wujj yi xam nañ leen doomu yi xam nañ leen seen nekkee wujj yi dafa neex. nakar nekk ko fa duñu kuloo duñu xeex boo gisee doom yi yëpp ñu nekk benn ci yaay yi lañu ko fekk ndax yaay bu ñu nekkul benn doom yi ñu mën a nekk benn boo gisee doom yi nekk benn yaay ñu nekk benn ndax seen aaw bi nii fee foofu la nekk wakaam waaye fii dara bu xewee teew na ba jaranke yi sax dara bu xewee teew na ndax bu jam yi wujj yi tamit bu ñu nekkee fi ba tey ñun ñëpp benn dëkk lañ joxe ñun ñëpp ay mbokk lañu digg yàlla xale yi kii moo leen yar ñun duñu kam moo leen nampal sax ndax am na yoo xam ne dangay jur doom yow daanaka nampal bi kese moo la nekk boo kasee nàmpal rek nga ne ko demal ci sa yaay moo koy toppatoo ndax dañoo xam yaay bi yaay ji mooy xale ci ñoom mooy xale ci ñoom waaye yàlla def yaay ji amul problème amul wax foo ko gisee rek rey rek mariama sax boo ko ki mariama na nga def sax pour mu tontu la mooy problème bi yàlla def rek yaay ji mu am ñaar jigéen ak benn bu góor benn bu góor bi tamit wujji jàppale ko doomam yi ndax yàlla tax ñëpp ñu nekk benn doom yi tamit yàlla jox leen yar nga xamee sa yaay moo leen woon loolu ndax ñu ñu ñëw fii xam nañ ko doom yi dañoo yaru dañoo may mag cer amuñ benn problème mu ñëw teel say yaay tegi leen ci kaw wàccu leen ci suuf kon lool loolu kese kese yàlla mën na leen ko may kii nga xam ne dem na yalla moo ko yóbbu xëy na yalla bëggul mu yàgg ci àdduna ndax lu muy xam nga am na nit nga xam ne boo yàggee ci àdduna màgg balaa ngay am bakkaar xaar ma dindi bakkaar boobu boo moytu bakkaar boobu yàlla bëggul mu am bakkaar boobu moo tax mu génnee ko ci àdduna ndax bu fekkee noonu la ya yaayam tey fu mu toogu noonu du gis dara kon kii la yaakaar kon moom kese kese kese waroo génne interview waaye boo gisee mu génnee ko yàlla moo tax mu génnee ko ci àdduna makam bi nga xam ne dañoo ànd moom tamit lu ko nekkoon dañoo ànd bi ci liggéey lu ko nekkoon ñu ànduwaat bi ci kër ga mu ne yaay ñëw nañ waaye yàlla deful loolu ñoo ngi koy ñu leen di sant ñu leen di gërëm ñëpp gis nañu lii doomu aadama nga xam ne di nga am wujju nekkal sa wujju bi benn at bon boo nekkee benn awujj bi benn ko xadu yow sa doom yi yëpp dañuy nekk benn bu boobaa bi ngeen génnee si àdduna seen doom yi yëpp ay benn lañ ñu am se yërmande kon tey tey ñoom ñëpp bu ñu génnee àdduna seen doom yi dañuy nekk benn ñu am se yërmande waaw kon ñu nga xam ne di ngeen àgg fi ñu sant naa leen ñëw ngeen jàmm ngeen àggee ak jàmm. jërëjëf jërëjëf noonu mu nekk loo xamante ne nii seede yi rafet na waaye ñu ngi toog ak ki nga xam ne mooy rescapé bi nga xamante ne mooy Ousmane moom moo am ñoo àndoon dem liggéey Ousmane ñu ngi lay maa ngi lay fay bu xew-xew bi nan la dale seen kaw ak nan ngeen liggéeyee ba yëf yi am. xew-xew bi bëccëg lañu dal ay côté 10 heures maa sama rakk bi dañoo jógoon fii xëy dem biñ demee. biñ biñ ndékkee ba pare moom sax nangul woon ndékki man maa ndékki teew teewloon ko xaalisam léegi bi ñu dekkee ba pare ñu commencé liggéey bi ñu liggéey fekk moom sax mu ngi woon kii nii si côté suuf si di di tibb suuf di ko génnee si biir si biir chantier bi ndax foofu daa bari woon ay suuf suuf yëpp dañ ko dañ ko doon génnee boobu man sax maa nekkoon si fii fi nga xamante ne bâtiment bi fara fara daanu man maa fa newoon mais mais après man ab maçon laa doon jàppale pour mu pour mu coffrer léegi après man damaa mujjee bàyyi maçon boobu boobu noonu déplacé wu pour am am chef de chef de chantier bi digal ma nee ma ma pour ma waxil ko benn côté da koy ñëw daaneel pour pour coffrer foofu léegi man bi ma kay bi may def lim ma lim ma sant am am suñ benn koo xamante ne ñoo ñoo fa nekk di liggéey mu ngi mu ngi tudd Sow moom sa daa mujjee ñàkk ñàkk bakkanam si kii bi moo moo dégg benn benn benn mu ne e moom bi muy naan e bâtiment bi bi muy daanu benn benn la ndax bâtiment bi avant moo daanu benn benn bruit rek la def bu ndaw bu nekkoon signalé na sax avant def na sax benn kii boo xamante ne avant muy daanu ñun ñëpp dinañ mën a sauvé mais bi mu defee biri biri bi ah bi muy daanu benn la léegi man man nag fekkoon na maa maa gën a jege porte porte porte de sortie bi man benn waay boo xamante ne technicien bi kooku moo doon super supervisé max moom moom moom seetlu naa ni max moom ñoo bokk bi ñuy bi ñuy génn waaye duuru man moom pour man mu ngi woon si ginnaaw ndax man sóoraale ma ma ko woon sa si biir mais pare bi ma dawee génn gis ko bi ma dawee génn turam dama ko yuuxu plusieurs fois pour man sa sauvé wu na mais bi ma wanee tànk bi ma ma tourné si si bi bi ma génnee seen yaram bi ak kii bi bi mënatuma woon tey sama bopp dama dama yendoo di yuuxu rek gars yi jëm nañ ma calmer ba sonn mais mënu moon téye téye sama bopp mu nekk lu métti nga xëy ànd ak sa rakk dem liggéeyi choc boobu dal ñaata ñoo nekkoon si bâtiment bi ñun onze lañu woon ak benn waay bi ñu naan Babacar koo xamante ne gars yi moom lañ moom lañ sauvé moom dafa moom dafa ñëwoon pour am pour àbb quelque matériel moom sa li tax mu sauvé wu si case si case escalier bi la ne woon te foofu te foofu noonu bi muy daanu beneen beneen côté bi la daanu case case escalier bi yàquwul sax noonu moom sax looloo ko gën a may sens pour mu pour mu sauver mais ñeneen ñi nga xam te ne ñàkk nañ seen seen bakkan si digg bi lañ newoon te foofu foofu la bâtiment bi daanu. réew à peu près ñàkk seen bakkan yow moo fa nekkoon. à peu près cinq cinq personnes ñoo fa ñàkk seen bakkan. ñeneen ñi si des sauvé nañu comme onze ngeen cinq ñoo ñàkk seen bakkan kon six yi ñoom ñoo génn. man ma bokk si ñi génn. ñaata temps ngeen liggéey foofu si bâtiment bi. 9h euh, nag la ñuy xëy wàcc 17h des fois sax dañuy wàcc moins de moins de 17h. depuis kañ ngeen commencé woon liggéey si bâtiment bi foofu. Duudu moom commencé woon na fa depuis dimanche xaw ma dimanche wala wala samedi parce que man maa ngi féete woon wakaam sama tante bi laa laa ne woon parce que dama ne comme que man ren dama am damay dem si sama kër. tànta toog fa une semaine man noppalu sam sam sam sam bopp bi reposé wu après laa laa ñëw fii ma ma xam ni toog bi may toog nii bari na te aw ma aw ma su ma su ma bëggee dara damay damay risqué naan yaay may ma lii may ma lii te lool jommu naa ko loolu moo tax ma ne baa ma dem liggéey après si laa waxee sama sama rakk bi duudu moom si la waxee patron bi sax mu ne ma mën nga ñëw ndax foofu inspire dañoo manqué ay dañoo manqué élément ma ne ko ok waaye man mercredi laa laa commencé non déedéet beneen beneen semaine bi une semaine laa fa def ok. léegi euh, bâtiment bi lan ngeen ci doon def ba mu màbb. bâtiment bi gars yi fondation bi lañ doon lañ doon defaraat ndax kom su su su forme de sous souterrain ndax lépp li nga xamante ne mooy base bi mooy li li téye kër gi bâtiment bi. moom lañ doon waxe noonu pour kii ni defaraat foofu ay séance mais séance mooy li nga xamante ne kii kii lañ doon coffrer mooy avant ngay yéeki yéeki bâtiment bi mooy fondation bi kii ngay man nan laa ko mën a wax waxatee. parce que man ma dégg ne dañu doon def souterrain si suuf après bi ñu tabaxee bâtiment ba pare loolu la. waaw sous sous comme comme genre sous souterrain la mais man moom gëwma ni ndax ndax ndax sur sur kii nii souterrain la ndax gars yi fondation bi lañ doon jéem a jéem a defaraat te buñ te buñ parewaatoon gars yi dañ koy yëkkiwaat mu jóg. Mhm. mais nan nga dundee loolu nga nekk ak say moroom jékki-jékki dégg benn bruit ñi ñi ñi daw génn daw génn ñu si des des si biir bi nga génnee yow ba gis sa frère nan nga ko gisee. bi ma génnee ba gis sama frère daa mel ni sama sama àdduna yëpp sama àdduna yëpp tukki na. ndax am na vidéo sax yu may yu may gis may dégg ay ngeen dégg ay yuuxu yu yuuxu yooyu man la woon ndax sam frère bi laa gis tànk bi féete bi yaram gis fi féete biir ok miir bee kii woon si tànk bi noonu sama àdduna bi tukki xawmatuma lan laay lan laay def ay jooy rek laa mënoon même moi je me je me sentais faible parce que mën ma mën ma ko woon sa sauver maa ngi naan sama rakk dina dina demee nii te man man mënuma si dara. Hmm. yow sa yaram lan moo lay metti da nga am blessure wala lan. sama yaram waaw sama loxo bi fii laa gaañu ak ci sama jambe fii gauche bi nii day metti ins bi sama yaram bi sax des fois damay damay yeew di sentir ay ay douleur yu ndaw. dafa am la jot laal yow. non sóoraale wu ma ko nag parce que man benn objectif laa amoon daw génn moo tax li ma li bu amee lu ma laal sax man man xaw ma si dara. est-ce tiitaange jàpp la ba yow xamoo lan moo lay metti actuellement ni boo demee loo gën a dem sa yaram gën a sedd moo tax sa yaram bi di commencé di metti nànk-nànk. non peut-être nag parce que bi may bi bi ma doon génn sóora sóoraale wu ma man dama dama dama daw rek foncé génn mais si jour bi dara dara dara jotuma à part xoos-xoos may am ax sama si sama tànk bi mais à part ça ça alhamdulilah. yow ñaata at nga am. man 21 ans. d'accord Doudou moom moo am 17 ans. 17 ans waaw. d'accord bi nga taxawee gis ñu leen di génne yow nga xalaat ne lii yàlla muccal na la ci yow ban yëg-yëg nga am en tant que góor yàlla bu ñëwoon di dóor waar. yëg-yëg non man man man boobu taluma benn benn yëg-yëg man sama rakk bi rek laa bëggoon bëggoon sauver. lépp lu ñu wax sama sama rakk bi laay wax lépp lu ñu wax sama rakk bi lépp lu ma jox nangu ma kaa kii nii sax lépp lu ñu wax ma ne leen sama rakk baa ngi si biir boobu sentir moon dara dara si man sama rakk bi rek laa laa bëggoon sauver. Hmm. ñu ngi lay masawu baax a baax ban souvenir nga gën a moo la gën a marqué si Doudou ñu tëjee foofu ak souvenir bi ma gën a marqué si. Hmm. souvenir bi ma gën a marqué si jour bi dañ doon dañ doon waxtaan. ñuy dem mu naan ma ndax ren da ngay da ngay màggali ma ne ko waaw ren damay damay màggali mu ne ma man aussi damay damay màggali mu ne ma Pape Kane lay àndal ma ne ko waaw incha allah di kaddu kaddu boobu boobu noonu lañ mujjee essence kii nii essence xanaa biñ nekkee si si chantier bi su ma ko nee jot jot jotali ma lii mu jotali ma apare mu delluwaat si liggéeyam à part ça mooy loolu. souvenir en tout cas moom heure bu ñu doon wàcce dañuy nekk fii di di tooñante di foo comme magax magax raka rek xam nga des fois dañuy neexoo des fois ñu kii mais max ma moom si si jàmm lañ lañ mës a nekk pour pour di vrai nit nit nit ku baax la te te si xale bu baax la aussi. ñeneen ñi si des génn nañu ñoom tamit ñeneen siis si des parce que yéen ñëpp yéen ñi génn ñëpp siis ngeen ndax cinq ñoo ñàkk seen bakkan si biir. waaw ñeneen ñeneen ñi si des yëpp génn nañ ndax biñ biñ doon dem hôpital ñun ñëpp ñoo ñoo àndoon si même si même auto ambulance bi waaw. mais cinq yi fa des aussi ñi gaañu ñoom génne nañ cinq koor yëpp jot ngeen seen koor yëpp. cinq koor yëpp waaw génne génne nañ leen ñun suñ koor jot nañ si waaw. non robo robaguñ ko nag. ins bi ba léegi gars yi ñu ngi ñu ngi ñuy dawlo ndax tey lañu waxoon lañuy la ñuy jot koor gi buñ ko buñ ko jotoon tey tey la ñuy def enterrement kii enterrement bi lépp. mais finalement gars yi dañ ñëw mujjee yóbbuwaat ba suba léegi suba bu ñu demee la dem dalal dalal jàmm ngir ñu mën ñee ngir ñu mën a àndax corbillard bi ngir mën a dem defi ki autopsie bi fële CTO bu paree mën a mën a jël suñu corps def liñ siy def incha allah. ani de chantier bi nag ki leen jëloon yéen ngeen fay chef de chantier bi aussi moom daa mujjee décédé ndax moom tamit si biir si biir chantier bi la ne woon. Mhm. voilà mbokk téléspectateurs yi gis ngeen li nga xamante ne moom la ñu indiloon tey seen émission xew-xew mu nekk xew-xew bu tiis bu metti lool gannaaw bu ñu jógee fële si presse ngeen xam ne foofu la woon kër gi nga xam ne fa doon defaraat mu daanu euh, kenn ku sa ñàkk kenam nag fii la dëkkoon si kër gi ndax xam ngeen ne juróom 11 euh, personnes la ñu woon Euh, cinq yi ñàkk seen bakkan ñoom siis ñi génn waaye ñaar ñi nga xam ne ñoo bokk benn baay fi lañ jóge woon muy duudu ak ki nga xam mooy Ousmane yàlla def ñàkk si bakkanam mooy ki nga xam ne am 17 ans ñëwoon vacances mu nekk lu métti lool lool ñu duggee si kër gi jël nañu mbokk yi jël nañu yaay yi nañu mag yeeg rek yi ñu expliqué ni ñu yëge xew-xew mu nekk loo lu métti lool am rek ñu bàyyiwaat xel si li nga xamante ne mooy ñoom ñi nga xam ne dañuy liggéey liggéey yi nga xamante ne dafay dem si wàllu bâtiment parce que dañuy faral di wax ne amul bànqaas kon lu si mënti am ñu leen massaw bu baax a baax a baax leen wax ne rek nekk yàlla na fi yàlla may xolu muñ yaayam ji nga xam ne fi bàyyi maanaam tantam ji ko yoroon yàlla may ko xolu muñ bu baax a baax a baax rendez-vous incha allah mardi lay doon 14h30 di jaajëfal ñi ma àndoon Paalo moo yoroon oto bi waaye Pape moom moo yoroon bi rendez-vous incha allah mardi jaajëfal naa ñëpp Lamine Mbengue si montage Fafis Mbaye si coordination bi